teew gis na Ka El Diaz non su ma rakk la. question boobu sawar yow moom dinaa sawar ci sa jugaay kii naan ma salaamaaleykum Baye Mandione moom doo am question bu neex parce que defe naa ni man maa ngi ci leneen El Diaz su ma rakk la. kenn ku ne dégg na su ma intervenir maanaam Abdou Midina Abdou Midina bi may wax moom moom ñoo bokk ndey ak baay suma mag la amital euh, mooy jabaru Abdou Midina ñoom ñoo États-Unis ba du sonn ku ci ñoom Laay Njaay Yàmbu Njaay ñoom Gambien ñoom Abdou Diouf ñoom Ndoye Diouf ñoom ñëpp sumay xar lañ sumay nit lañ mu ne États-Unis damay jàppale surtout Laay Njaay ak Abdou euh, kii euh, kii nu mu tudd Njaay ak ak Yamou Ndiaye seen kër laa nekk 2012 ba tey mais Abdou Medina damay fekk ci kër gi ma nekk di ma soutenir di waxtaan ak man di nekk ak man ba yaakaar naa sama États-Unis yu bari day gën yomb mais gërëm naa ñëpp ñi nga xam dañuy jàpp ci États-Unis mais famille boobu dañ cee raw su may nit lañ kon lu ñuy xewle rek dama ciy dugg quoi loolu moo sama teewaay. mais ñun tey dañuy jox parce mooy li ma wax rek xam nga sànq ci biir wax ji déggu li ma dama ne la néexut a bañ man xam naa li may wax. gëm na li muy def parce que maa ko ne tëpp tëpp moo gën yuróot jékki-jékki 2012 maa ngi moom def nañ benn clip mais mais li muy def da ko teg ci talent teg ko ci yoon du kalaas du saaga du def dara dafa yaru jaas xale mu ndaw mën na ko tardeel fi mu nekk mais nag euh, lu mu gën a jàppaan ni ñu doyul tey mu fees du jàmbaaram du góorgóoroon loolu suñu borom la mais lu mu gën a jàppaat axalu Sénégal surtout waa Médina doyul loolu loolaa koy conseillé man boog kenn mësuma gis ay affaire rabok wala ay grand théâtre yooyu j'ai pas de temps j'ai pas envie pour ay tooy mais man moo am sama temps ma am temps am moo am sama ma am temps am te lu mu nekk maa ngi ci parce que famem ñoo ma jàpp. dafa mel ma la wax ñi ci biti mënuñoo dugg mais loolu sant yàlla waaw sant yàlla. xam la ci bëre xam la ci làmb moo di ma am ci ndam ak jàmm mais damay bëri léegi bientôt dans quelques instants incha allah ban ngor ngay dëkk am na ñoo fi nekk te ñoom ñaar incha allah nañ am waaw kër meer gañ di moom combat bu neex mën na sauver lamb di ñaan yàlla la yàlla mu nekk nit ñi ak lamb jàpp ci combat bi am quoi kër meer gañ mais man incha allah suma combat maa ngi ci ñaan yàlla mu ji. Ama Baldé Ama Baldé bëri nañ mais mënuloo bëree ma ak moom. waaw Ama Baldé mi nga bëri nan nga ko jàngatee noo jàngatee combat boobu ci lu gaaw rek. waaw champion la ndaanaan la parce que Ama Baldé kuy bëreel moom du la xaar day dal sa kaw man noonu la def noonu la ma def moo loo buñ bëree naax ci moom mais Ama Baldé day dal sa kaw ñëw pëtëm pëtëmee la mais bu demee tamit après moom mooy xam ba xam la mu fay fekk mu loolu tamit kenn kenn nattamul ndaanaan la mais di yàlla muy combat bu kër Merguez. sa ñuy gàttal ko ñi muñ ma nag jaas bi boole ñi ma tey du affaire mbër après dañ ci laal ci kanam tuuti guy ci scène bi maa ngi ci scène bi dañu bëgg nga wax ñu tudd seen chaîne YouTube la bu bees bu nekk